jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD yi tey ñoo nañ fekk si waat Cheikh Abdoulahi borom kurus gi muy kilifa di ñaankatu yàlla di borom xam màggal gi jub si na autoroute bi am na ñoo xamante ni chaque année yàlla dana dogal ñu ciy faral di def ay choc danañ ko laaj choc yi lan moo ko waral ak lan moo fi mën a jëlee choc yi. kujje politique yi état bi lu mel ni président Macky Sall ak Ousmane Sonko. ba tey tamit coow judduwaat na ci danañ ci dugg indiwaat ci ay leeral yu am solo danañ waxtaan li xew mais mbokk yi ci ginnaaw gis nañ benn maire bu toog ci kaw fenêtre Sénégal la yëpp jël maire bi am fu ñu ko dëkkal danañ laaj sëñ bi nan la gisee maire bi nekk mu nekkoon ci kaw fenêtre bi Imaam Ndao décédé gi mu décédé ba tey sénégalais ñu ngi laaj est-ce que waroon naa dem heure bi war a waru woon dem mais balaa boobu dañu bàyyi Cheikh Abdoulaye mu nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi sëriñ bi ñoo ngi lay jaare aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim qaalu subhanaka laa ilma lana ila ma alamtana innaka anta alxalimul hakim alaa ji mbokki improt ñu ngi leen di nuyu di nuyu ñi ci réew mi ak ñi ci bitim réew góor ak jigéen mag ndaw murit tiijan xaadir laayeen di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaw ah, Cheikh ay jamono dañu naan digg ñu naan diw dañ koo kànnaare wala diw ah, dañoo def dara tëj ko ci kànnaar yóbbu ko dugg ci bitigam leb ko mu leb ah, kon kànnaar bëri na ay façon ñu dégg ne am na kànnaar boo yor tey bëggoon na ñoo xam kànnaar bi nga yor ci lan lay dox ban façon kànnaar la. ñu ngi sant yàlla ci loolu. alaaji dégg karnaar bokkoon na ci yi nga xam ne dama noon duma ci wax waaye nag dafa bari doomu aadama yoo xam ne dañuy wuyoo ne mën nañ ko te mënuñ ko mbir wax naa la danga koy donn mu dëgër wax naa la ne sama waajur wu góor ak samay maam yëpp dañu dëkkoon ci àll bi te àll bi képp ku fi dëkk di am contact ak yeneen fi yàlla yi ndax yàlla de dina ne wa maa xalaqtu jinni wal ins illa liya'buduni kon nag nit ñi ñoo rab yi ñoo fi nekk kon nag ñooñu ku dëkk ak ñoom dangay am tegtal bu wér jugee ci ñoom ñun de tegtal bi ñu yor ci suñu maam la jugee jaar ci suñuy waajur ñëw ci ñun ñu doon na ko mu wér ci wàllu karnaar alaaji dégg damay wax ne karnaar gi képp kuñ ci dugal nga tàggoo ak sa sago képp ku ci dugal nit ak ku mën a doon moo xam da bëgg nit ki topp la boo ci dugalee turam def li ngay def nga karnaar ko kooku àddunaam yàqu na yaa xam danga bëgg nit jox la dara yaa xam danga nga nopp nit mu wan la ginnaaw nga bëgg mu jublu la karnaar gi daal mooy loo xam ne bépp aajo bu ci doomu aadama dugal aajo boobu noonu dina faju te tegtal la nag boo xam ne jógewul ci mbindeef waaye nag dafa jóge ci rab jaar ci suñu maam di doxa dox ba yegsi ci ñun ndax suñ maam kat daf daan jëflante ki ay jinne jëflante ay jinne nag nekkul lum sàkku waaye nag dañuy gis ngay nekk di jaam bu wér jaam bu ragal yàlla ñoom ñooy sàkku ngir jëflante ak yow jël ay tegtal di la jox te ñun daal liñ doon ci xam-xam dafa nekk lu wér mbiru Karnar daal dañ koy dégg waaye original bi moo nekk ci jëmm ji toog ñu bëri ñu ngi koy wuyoo waaye day dem ba nekk meuble ci ñoom waaye nag man lii bu ma ko defee ku ma ci dugal sa tur. kenn waxatul sa wax incha allahu. leer kànnaar nekk kon lu am solo nekk lu yéeme mais Cheikh tey euh, bëgg naa ñu wax ci yoon yi da ngay gis benn route ñu defar ko tëli ba neex lool mais sook ak accident yi daf ci faral di euh, bëri euh, lu mel ne sax màggal Tuubaa ñu bëri dañuy gis chaque année ay soog yu métti di am ci yoon wi loolu dinaa la ci laaj mais balaa boobu Cheikh bi ku bëgg a mucc réew mi fan nga mën a jaar ba mucc. ku bëgg a mucc dangay jaar ci buntu kaaraange sëgam yonent bi sallallahu alayhi wa moom moo muccul yàlla nee na ko wallahu yaxsimuka mina naas gannaaw loolu gis nañ yonent bi sallallahu alayhi liggéey nañ ko dem nañ ci njabarkat yu mag dem nañ ci labira ibn axsal ñu liggéey yonent bi sallallahu alayhi loolu moo waral euh, falaxe ak naas wàcc kon nag comme yonent bi moom moo muccul kenn du mucc ndax sallallahu alayhi da daan wax yataxawsu min aynil jin waa aynil ins kon nag ki daan muslu ci nit ñi ak ci leneen lu dul doomu aadama kooku noonu sëgam moom la yàlla musalul asuma ñun kon nag nit ki boo bëggee mucc da ngay taxaw ci buntu kaaraange yaa ngi may wax ne léeg nga gis yoon wu tàlli lool nit ñi ji ci jaar di am ay fitna li ci ëpp dañuy jaar ci yoonu rab waxtu wañ koy liggéey gor ay garab yoo xam ne ay dëkkuwaayu rab la doomu aadama yi di fa jaar di nekk ci accident ci waxtu bu ne gàllaaju accident nag dafa am nit soo bëggee mucc am na loo xam ne soo ko takkee sa ndigg da ngay mucc abadan am nañ nombre bu ñuy liggéey alaa ji dégg soo ko takkee doo dee ci lab doo dee ci accident doo dee ci lakk ñu ngi jublu màggal ñu ngi ci yoon wi mu ngi metti waaye nag doomu aadama yi nañ saraxal seen bopp ndax waxtu woowu dafay bëri ñu seen bakkan di ci des nañ saraxal seen bopp waaye tamit képp kuy dugg ci oto ak koo mën a doon na nga léemu sa bopp jullit dafay leemu boppam jullit day ñaan yàlla képp kuy dugg ci oto jàngal juróom-ñaaru ina anzalnaahu fi laylatil qadri jàng ko ci kàttanu yàlla yàlla dana la musal ba fa nga àgg doo gis dara lu la jaaxal ci yoon woowu noonu ngay jaar képp ku koy tëri loolu doy na gàllaaj ci wàllu accident loolu secret bu wér la bu Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu joxe ne benn doomu aadama du ko def di dee ci accident. kon nag sarax bi mu ngi noonu juróom-ñaari inna anzalnaahu fi lailatul qadri képp ku jug di dem ci màggal gi. ñaan ko yàlla nga léemu ko soo ko léemoo di nga dem ci jàmm di nga ñibbisi ci jàmm. mbiru kaaraange daal alaa ji dégg am naa ci loo xam ne da ngay gis nit ku yéeg ci garab daanu fa dee garab googu noonu am na lu ñu fay jël. am na loo xam ne ñu ngi koy jël ci xeeru teen bu të. yooyu yëpp ay bagage la yoo xam ne suñ la ko liggéeyalee alaaji dégg ñu jox la lii nga sangoo ko lii nga def ko kaaraange takk ko ci sa ndigg wallaahi di nga mucc te képp ku la laal dee am nañ loo xam ne ku la liggéey dafay faatu fa yàllaaw am na loo xam ne ku la joxoñ dafay faatu fa yàllaaw am na loo xam ne ku la dóor at moom du ci génn mukk doomu aadama dafa war a ñag boppam nit ki da ngay am kaaraange parce que jamono jii ñu nekk nii yëngatu na bés bu nekk nga dégg nit ku faatu lan moo koy sabab dëgg-dëgg kaaraange dafa des doomu aadama yi dañuy xëy rek di uut alal te bu njëkk ba da ngay uut mucc ba pare door a dox ci alal ndax boo muccee rek di nga mën a mos incha allah. Euh, sëñ bi tey boo xoolee euh, mbirum néew kattan ñu bëri euh, dañuy faral di wax naan des fois am na ñuy joxe gàllaaj te galaaj yi dañ ciy rax ay produits yoo xamante doomi tubaab lay eh, nekk soo ko jëfandikoo mu jàpp sa bopp bi metti ko eh, ngay soog a mën a sëy ñu dégg ne am nga galaaj yoo xamante ni da koy composé te lépp garab la lépp xob la lépp c'est naturel amul benn effet eh, secondaire. ñu ngi sant yàlla ci loolu. dañuy faral di wax ne. doomu bu nekk. garab yi nekk ci sa dëkk mooy garab yi nga xam ne moom moo lay faj nit dina jëggaani wér gi yaram ba biti réew du ko am amaana la muy wuti mu ci réewam moo tax ñun lépp lu ñu jox nit dafay nekk loo xam ne lu naturel lay nekk day nekk loo xam ne li ngay lekk bés bu yàlla sàkk muy bokk ci say lekk nga koy lekk wala mu bokk ci say naan nga koy naan te dara du la ci lor lii garab gi waxoon naa leen ko ci émission ba la jàll dañ ko jaay wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla ba mu jeex liñ ci defaraat tey lañ ko defaraat balaa moo man ñetti fan mu jeex ndax garab gi tuuti na waaye nag mbër la moo tax ñu tuddee ko mbër mbër nag lépp lum mu su dee mbër dëgg daf koy daaneel moo tax lii ku ko jëfandikoo bu fekkee da ngay taxaw du dëgër soo jëfandikee mbër mi mën nga toog juróom-ñaari fan wala fukki fan yoo xam ne su la yàlla dénkoon ay soxna mun nga leen jox seen aye mhm. dafa nekk loo xam ne dafay dimbale doomu aadama bi mhm. am na doomu boo xam ne diabétique la mhm. loolu dafay am jafe kàttan am na koo xam ne dafa am day am jafe kàttan am na koo xam ne waxtu bu ne dafay nekk ci wàllu stress am na koo xam ne dafay lekk lekk yu niin yoo xam ne mën na dem ba fatt lenn ci yoonam ba nga xam ne deret bi fi mu war a àgg du fa àgg lii soo ko jëfandikoo jëfandikoo nga boole ko ak meew wala nga boole ko ak lem soo ko jëfandikoo dafay raxas sa deret ba mu set wecc te li ngay ut da nga koy am alaaji dégg lii ku ko jël wax naa la di nga toog fukki fan fukki fan boo taxawee day dëgër te da nekk doomu aadama boo xam ne doo gaaw a jot sa bopp produit bi naturel la raxul dara liggéey na ko ci plante yi nga xam ne ñu ci réew mi liggéey na ko ci ingrédients yoo xam ne jëggaani wuñ ko fenn mu nekk loo xam ne lu wér la ku ko jël mu delloo la incha allahu rabbi ci say ñaar fukki at incha allah ayco numéro téléphone euh, Cheikh Abdoulaye Thiam borom kurus gi mi ngi noonu affiché képp ku ko ci woor rek da nga ko jot produit boobu moo tudd euh, mbër mi euh, sëñ bi gàllaaju kaso parce que jamono ji tamit dañuy gis ndaw ñu bëree bëree bëree bëree bëri dugg kaso daf leen a yomb lool lool ñu ngi sant yàlla ci loolu am na benn baat ci alxuraan mët xaama taan yi dañ koy liggéey am lim buñ ciy liggéey loolu suñ ko liggéeyee da ngay jël saafara bi nga def ko mu fanaan ci jaww ji nga daal di jël caabi nga sànni caabi ja ca loolu fanaanal ko ba bët seet nga sangoo ndox mi nga jël caabi ji gas ba mu xóot nga suul ko alaa ji dégg loolu ku ko def caabi du la fetee ginnaaw mukk ci abad ci àdduna am na loo xam ne dañ koy bind ci reesu xar nga lekk ko boo ko lekkee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam hmm. da ngay gis ne caabi du la féetee ginnaaw mbiru kaso am nañ ci lu wér hmm. am na ci loo xam ne aaya doon rek baat bu ndaw ñu bind ko am xeer su ndaw buñ ko booleel hmm. nga wan ko soo ko wanee doo dugg kaso muy lu wér ndax li may fàttali loolu ci jamono audit yi damay faral di wax ne dafa am kilifa gu mag kilifa la ci man ma doon jàng xam-xam ci moom. dama ñëw ñuy wax waxu audit mu ne wallaay laazim audit bi du mujj fenn ma ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ma dafa bëri ñu wann sama xeer bi ci réew mi. wallaay laazim ana audit bi. ana ñuñ doon woo. Ah. ana ñu fu mu mujj ñan lañ fi tëj ñaata nit lañ tëj ci audite bi. ndax lan bëri na kilifa yoo xam ne jox nañ leen loolu ñu wan ko. alaaji dégg am na ñu caabi dul féetee ginnaaw mukk mukk ci àdduna ak seen jëf lu mu mënanti di rëy am na ñoo xam ne duñ dem gendarmerie duñ dem police duñ dem tribunal caabi du leen féete ginnaaw mbiru kaso lu mu mën a doon ñëwal ci Cheikh Abdoulaye dox nañ sa diggante ak loolu bu la procureur woo nag juge woo la na dugg ci sama nopp bi hmm. wallahi lazim doo dem kaso ndax kaso dañ ci am gàllaaj yoo xam ne sax boo ko takkee sa ndigg caabi du la féetee ginnaaw am nañ nombre boo xam ne soo ko takkee waxuñu la nga def lu la neex waaye dee ci sedd sa borom bi ndax ñun dañu war a nekk jëmm yërmande ndax nit mooy xalifatullaahi fil ardi buñ nekkee ñooy xalifatu yàlla ci kaw suuf war nañoo am yërmande képp ku ñëw làqatu suñ ginnaaw war nañ la aar moo xam ci wàllu kaso la danañ la aar ba pare suñ lay yedd ñu door la yedd kon daal mbiru kaso am nañ ci lu wér am nañ ci lu wóor incha allah. alhamdulilah euh, cheikh bi tey ñu dugg ci li nga xamante ni yaakaar naa leen la tamit ci lu euh, am solo ci dëkk bi ñu bëri ñu ngi bëgg a tukki euh, seeni mbir takk papier moom def nga ci résultat. papier li nga def ci ay preuve bëri na parce que ñi may woo naan ma dimbali nga leen ci côté boobu surtout waa bitim réew yi bëri na kon côté boobu dama ci waxtaan mais côté bi ma bëgg ñu waxtaan tey mooy ñi nekk Sénégal gii dem ci ambassade di déposer ambassadeurs yi ak consulat yi daanaka mayeetuñu ku bëgg visa bu gaaw foo mën a jaar moom. ñu ngi sant yàlla ci loolu. alaaji dégg jottali ma pamplemousse boobu jottali jottali ma pamplemousse bi. alaaji dégg bëgguma woon wax ci mbiru tukki ndax man dama nekk doomu aadama boo xam ne yàlla dafa def nag ma am bëgg-bëgg ci sama réew gëm na ñëpp mën nañoo mën nañoo tekki ci réew mi waaye nag am na koo xam ne bëgg-bëggam mooy tukki mbiru tukki nag gis nga lii moo xam pamplemousse la wala orange ndax dafa am meññeent ñuy soxla moo xam pamplemousse la moo xam orange dafa téere boo xam ne suñ la ko bindalee dangay jël doom yi nga dugal ko fii daal di jël lii fexe bañ yóbbante ko biti réew ñu sànnil la ko ca dëkk ba beneen téere bi nga takk ko sa ndigg gis nga téere bi nga yóbbu bi nga takk sa ndigg di nga ànd ak moom nga dem ndax lañ cay liggéey la ma xana jaxadin lay nekk ànd ak ay doomam te nag doom fépp fu mu nekk dana jóg fekk ji ay waajuram lañuy liggéey ci ndey ji lañ koy def def ko ci doomu pamplemousse wala ñu def ko ci doomu orange nga dem nga sànni ko ci réew ma nga bëgg a dem la ca topp nga jël ko takk ko sa ndigg mhm. boo ko defee réew moomu noonu danañ fa togg sa añ ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñun li ñuy def xam-xam la dafa wóor ndax ñun dañoo gëstu waaye it dañoo donn mu dëgër mhm. ñun amuñ ci ñaan yàlla dara dara dara luñ ciy tappale amuñ ci dara luy hasard mhm. ba ma gisee yenn sëriñ si sax nekk ci internet bi di théâtre parce que dañu ñu ci bëri dañ raté seen vocation daf leen waroon a fekk ñuy théâtre ñaan yàlla dépassé na loolu nañ góorgóorlu góorgóorlu ci ñaan yàlla nañ góorgóorlu ci kurus nañ fexe ñu am yitte nañ yàq suñuy nelaw man maa mënul comprendre doomu a jox la ay millions muy nelaw ngay nelaw te nga war a mun a yeewu diggu guddi ci waxtu yoo xam ne wax waxtu nangu ñaan la am na waxtu yoo xam ne yàlla du ci delloo benn ñaan lu ci nit ñaan mu jox la ko am na bërëb yoo xam ne yàlla du fa delloo ñaan am na waxtu yoo xam ne yàlla du fa delloo ñaan am na bés yoo xam ne yàlla du ci delloo ñaan waxtu yooyu nag képp kuy ñaan yàlla war nga yegg ci dayoo xam li ñuy wax xel mu nujuum am xam-xam ci wàllu bidiw am xam-xam ci xel mu sajara ba nga xam ne yow mbir mu nekk dangay xam naka nga ciy duggee mm-hmm. mbiru tukki daal pour ñi ko bëgg mu yitteel leen bunt baa ngi noonu yoon waa ngi noonu incha allah. Euh, Cheikh Abdoulaye tey euh, Imam Ndao euh, bi mu gaañoo ñu bëri ñoo xamante ni bokk nañ ci umma islamique tey am nañ na xar gis nañ ne dafa jóge prison yàggul dara rek mu gaañu am na ñoo xamante ni nag génn nañu wax ay wax ba mel ne lu koy tuumaal foofee mu jóge mais tey ban gis-gis nga am ci dem gi nga xamante ni Imam dem na ko. ñu ngi sant yàlla te di ko ñaanal yàlla njéggal nit ku baax la woon ndax ay doomam. samay kóllëre woon lañ nit ku baax la natt yu bëri jaar na ci moom ndax yonent bi moo ko gën a for yàlla natt na ko Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul mi waral màggal gi tey yenu nañ ko yóbbu nañ ko fu ne ndax woote nañ mbiru terrorisme def nañ lii def nañ laa mujjul fenn ah man de dama jàpp ne bu doon moo def kenn du ko bàyyi ndax doo jël bombe atomique ba pare ba pare ne lii dafay dal ci kaw askan bi nga bàyyiwaat ko. kon nag mbir mi politique bu rëy mu ngi ci. la ci xew nag yàllaa ko xam. waaye nag mbir mi moom luus na doy na waar. politique bu mag a mag a mag mu ngi ci biir. waaye la ci xew nag carrément. yàlla rek moo ko xam ndax dañu nekk ci jamono boo xam ne jamono bu compliqué compliqué la. jamono la boo xam ne daanaka ñi ko dirigé. doonuñ sax ay jullit. ñi ko diriger ci ay lobby maçonnique la ñuy nekk rek xoqatal nitu diine yi xoqatal nitu daara yi xoqatal ñëpp képp ku contre ñu xoqatal la képp ku xeeb seen nguur ñu xoqatal la ndax dañu nekk ci jamono boo xam ne ala foog nit ñi ñu ragal yàlla delluwaat ci téere yonent bi sallallahu alayhi wa ndax ñun dañuy roy ci ñoo xam ne dañu royukaay mm-hmm. ci jamono Cheikh Ibrahim da ngay gis nit ñi loo wax rek ñi wax na Napoléon wax la nàngam wax la nàngam mu bind mbind mu rëy ci loolu di dànkaafu nit ñi di wane ne téere yàlla bi rek moo am solo ne fama Napoléon wali aw markasun bi muhan ilayhim xali an ka xabaala kitaabun min allahi jalilu jalaaloo xadimun wa baaxin la yaqaafu zawala mm-hmm. wax wax bu rëy wax bu kawe mu ne ñin ñi ñu ngi naan Lénine marxiste nangam nangam nangam mu ne seen wax yi du dara waxi kese la nañ dellu ci téere yàlla bi moom mooy sax te moo fi sax daayiman imaam Alioune ndaw daal yàlla na yàlla def njégal ci moom yal na ko yàlla xare aljana yal dëkk ak yonant bi sallallahu alayhi wa te daal ñu ñaan yàlla tey moytu nañ moytu te ñaan yàlla yit yàlla may ñu mucc ndax bu fekkee dañoo nekk ci àdduna boo xam ne da ngay gis benn bëy bu ñëw ci tribunal juge bi bukki la avocat yi ay tilli lañ ndax béy boobu dina mucc du mucc attekat yi ay tilli lañ ñii ñu nekk leneen kon ñun fan lañuy ñuy muccee yow bëy nga bukki lu muy wax ci bay lu dul lekk rek till lu muy wax ci bëy lu du lekk kon nag buñ demee ba ñun ñi ñu war a àtte ñoom ñoo ñuy njëkk lekk hmm. avocat yi ñu war a jugé ñoom ñoo ñuy njëkk lekk hmm. est-ce que mucc mun na am nañ delluwaat ci yàlla rek hmm. nañuy wérd nañuy zikkër nañuy sangu ngir yàlla mun ñoo musal seex bi tey euh, da ngay dégg euh, sëriñ su bëri naan la man istixaar laay def ñii ne la man seet laay def dafa am bu ci gën a fort wala dafa am boo xamante ni mooy feeñal mbiri nit ki yëpp. alaaji dégg seet mooy istixaara. arab dafa wax lii. mu ngi mel ni kii ne maison kii na kër. Mhm. lii mooy mooy différence bi. fanaanoo. mooy istixaara. isqaar seet la yonent bi moo ko digle sallallahu alayhi wa sallam maqaaba man istiqaara salawaatul istiqaara xaqun yu jaddu kulli shay euh, seet leen seen mbir ci listiqaar kër gi nga bëgg a jënd oto bi nga bëgg jënd soxna si nga bëgg a dugg lépp loo bëgg dugg yonent bi sallallahu alayhi mu ne na ko gëstu na ko xool ndax doomaadama loo tëb dal di nga tëb génn ci kon nag nañ gëstu di xool ci suñu mbir loolu mooy seet waaye nag bëri nañu ne la mën nañ ko fekk dañuy tëdd nelaw ba bët set. ñu lay wax nañ bàyyi tappale yi te dellu ci yàlla xam na dëgg rek moo sax ku dagg léppam ngir yow la nga mën na nga ko def ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. alaaji dégg. am na beneen mbir boo xam ne ci jamono. dañu nekk ci jamono bu lëj. jamono bu compliqué. Euh, jigéen ñi dañ may jàmbatal lu bari ci seen borom kër yi. Ah. da ngay gis ku nekk jigéen mu bàyyi yaay bàyyi lépp. ndeysaan doo ko jox dépense bu doy. Mm-hmm. muy taxawaalu ci mbedd mi doomam yi di sonn. Mm-hmm. lii nag dafa nekk loo xam ne suru bi. Euh, mooy lekk sa alalu jëkkër. waaw kuñ ko liggéeyal am na tur biñ ci dugal. Mm-hmm. waaw kuñ ko liggéeyal moom day jël saafara bi bu demee ba waxtu ànd ak jëkkëram mu raxasee ko kanamam. at moomu lu sa jëkkër am dana la ko jox. waaye bu ah. at bi jeexee nag dangay ñëwaat ñu renouveler ko. loolu lekk sa alalu. jëkkër la doon ku ko def sa jëkkër dana la topp daay man ku ko def sa wax waaw lay wax sa déedéet déedéet lay doon muy yoon wér mhm. am nañ ko tamit ci wàllu noot mhm. loo xam ne nii góor lañ koy jox mu def ko ci kanamam mu ànd ak jabaram mhm. su ko defee moom it daf koy topp daay man waxam waaw lay wax su la déedéet déedéet lay wax incha allah. leer na nañu te am na solo cheikh bi looy tàggatoo ak looy wax askan bi lay suivre ci MPROD yi waaye looy maye tamit ci màggal gi muy sarax boo xamante ni ku ko def rek dem ci jàmm ñëw ci jàmm. ñu ngi sant yàlla ci loolu màggal gi daal ñu ngi màggal kilifa gu mag moo woote nee nañ ko santale yàlla muy Cheikh Ahmadul Xadim du suñu maam bokk ci ñi nga xam ne tasaare nañ diine ci réew mi ak ci biti réew man de dama am mbëggeel gu wér ci moom man de dama am yaakaar gu wér ci moom muy koo xam ne lu ko nit liggéeyal wallahi dana ko gis ndax ñun suñu mag ñi duñu ñu ordinaire dañoo extraordinaire moo tax damay toog ci jamono gis ñu benn waay ju génn fële gudd sikkiñ lool di dingan màggat màgg màggeel di naan màggal baaxut di dingat gàmmo ne gàmmo baaxul may laajte ñooñu xanaa jànguñ addis ñu xanaa jànguñ alqur'aanul karim may gis dingat gu métti ci réew mi te amaana ña ñuy dingat sax ëxlu tasawuf ñoom ñoo leen jàngal axlu tasawuf yitte bu nekk def nañ ko ci réew mi ngir doomu aadama yi mokkal alxuraan alxuraan jafe woon na bi mu jugee ci làkk yaaram waaye mag ñi biñ ko bëggee jàngal da ngay gis ñu ne la siin su tooy liif gu dok xay xaaf lamara cekkamtu miim nuun sadara nga gis moyen bu ne utiliser nañ ko pour alxuraan dugg ci seen dënn yi bi alxuraan duggee ci dënn yi ba pare ñu ci nekk dem wuruj jot ay financement ñëw diingat axlu tasawuf te axlu tasawuf bu ñu fi nekk toon créer fi ay daayira tarbiya fi ay doomu aadama kon réew mi liñ ci am nii duñ ko ci am mhm. Sénégal réewu jullit la kon nag mag ñooñu suñ gisee ñu leen di diingat dañuy tiit mhm. màggal gi daal ñu ngi ñaan yàlla nit ñi dem ci jàmm ñëw ci jàmm bu benn benn benn accident am mhm. képp kuy génn nanga leemu sa bopp képp kuy dugg ci oto na nga jàng juróom-ñaari ina anzal naaw képp koo xam ne jug nga ngir dem jëlal ndox mu sedd guy nga saraxe ko koo ko jox baax na ndox moomu dana seddal say mbir ci dem dana seddal say mbir ci ñëw li ñuy tàggatoo daal di faral di wax ne kenn du nekk ci gaal euh, ci tefes di wéy wéy wuy këpp gaal mm-hmm. ñu ngi ñaan yàlla jàmm ci réew mi di yàlla jàmm ci réew yu ñuy wër salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ayco dégg ngeen waxtaan wu am solo wi Cheikh Abdoulaye Thiam boroom kurus gi waxtaan mu nekk waxtaan woo xamante ni am na solo waxtaan wi bëri na ay njariñ waxtaan wi ku ko teewlu di nga ci jariñu bu baax a baax numéro téléphone yaa ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk yi doon topp di ñu suivre ci improtive yi yàlla ngeen bëri jàmm ci darajay Muhammad Rasulullah